asalaamaaleykum wa rahmatullahi alxaaji Mbengue Diop ak Mandox TV mbokki àddina mbokki Sénégal Abdoulaye Ndiaye Ngalgou nag tey la ñu àndaloon jëm fële ca Kébémer ci euh, maison de la jeunesse boobu muy euh, teg pose première pierre bi ànd ko monsieur le ministre de la jeunesse mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu fan yële wonoon naa leen bi nga xamante ni moom la doon tabax Kaolack

noonu ngir ñu ñëw ci li nga xamante ni euh, muy bis bi kon nag ñu ñëpp nañu àndu déglu la nga xamante ni moo xewoon fële ca Kébémer Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ak monsieur le ministre de la jeunesse ak le maire de Kébémer le premier père de la maison de la jeunesse waaye ñu ngi ànd ak force tranquille Abdoulaye Ndiaye Ngalgou waa ñu bëgg nag ngeen xam ni tey ñu ngi fii ci Kébémer entrepreneur mag bi may leen Abdou Ablaye Ndiaye mu ñëw ci wetu ministre Pape Malick Ndour. Pape Malick Ndour kenn du yow. Ablaye daa bëgg jeunesse moo tax ñu dénk ko maison de la jeunesse. li nga def kenn musu ko fee def Pape Alex Kambel damaa gis sama leader ci département de Tivaouane moo tax may wax ba 4-4 nar a génn sama gémmiñ. merci Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. monsieur le ministre Pape Malick Ndour. waaw waaw ministre de la jeunesse dañ koy jox jeune. ministre de la kenn lañ koy jox jeune. waaye dama ni ministre day ree. ministre day ree ay weer te du weere. monsieur ministre je suis très content bi am nañ ci yow yaakaar ba nga reetaane. jeunesse bi am nañ ci yow yaakaar ba nga reetaane. macha allah tey ñu ngi fii ci Kébémer macha allah waaye ku tudd maire nag di nga tudd ndax maire da ngay doon jeunesse ba pare doog a doon maire kon ministre de la jeunesse pose première pierre maison de la jeunesse. kooku mooy borom ñoru tiit. surtout Mbaba Diakhou Baba Ngok. Mbaba ak maam Ndirim laa ko borom yal nan dund immigration ci barke yonent bi maison de la jeunesse Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse ànd ak Abdoulaye Ndiaye Ngalgu. force tranquille de la jeunesse. waaw waaw. kooku mooy maire Kébémer ah maire Kébémer waaw waaw waaw maa la wax lool waaye fekk nan fi fekk nan fi préfet préfet préfet nan fi fekk nan ko fi macha allah fii nag lan war a tabax maison de la jeunesse le jeudi c'est la fête il faut maintenir accepter toujours maison de la jeunesse ak Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse Abdoulaye Ndiaye ngalgu taalibe sëñ Abdou Aziz Salamine ku jotul ci président ci département de Tivaouane yow yaa tax jàppale nga jàppale nga ñëpp dooleel nga ñëpp Ablaye Ndiaye Ngalgu sama leader ci Tivaouane taalibe sëñ Abdoulaye Salam xaritam la Ablaye Ndiaye Ngalgu Malick Ndour a ngoog durawal mbegaan sama waa ji entrepreneur bu mag bi monsieur le ministre nee na woon naa la dégg obstacle de l'évolution du monde où la motion de continent tend à remplacer celle de nation où l'Afrique essaie de se libérer des cloisonnements qui l'étouffent c'est en remontant aux sources de la culture de chaque pays que l'on découvrira la force vraie les tendances naturelles et les